monsieur Jean-Paul Diaz euh, ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi. maa ngi leen di nuyu di nuyu auditeurs yëpp. alors ñu door waxtaan wi ak euh, élection locale yi nga xam ni euh, yaakaar nañu ne dañu ko nar a dàq yow lu ci sa xalaat ànd nga ci wala ànduloo ci ñu ñu ñu dàq yooyu élection. dama ne buñ koy def dañ koy def pour mu am njëriñ. bu ñu war a def élection te ay yàqu-yàquwaat ci nekk kooku jaru ko. je pense que yenn yi tey ci moo gën donc man d'accord na pour ñu dàq ko ba ci kanam euh, mun nañ ko sax coupler ak euh, législative yi mun na nekk n'est-ce pas mais euh, parce que loolu euh, yoon may na ko assemblée nationale assemblée nationale moo waroon fu ñu toll nii jël benn loi pour proroger mandat wu ñi ñi ñi fi nekk au niveau local mais bref. mais à partir de mais en deux mille vingt deux defe na assemblée nationale munul voter prorogation son propre mandat munu ko. Mhm. kooku yoon mayu ko ko. naam mës na am mës na am mais c' était pas l' c' était pas conforme à la loi. Mhm. donc man ànd naa ci. parce que élection buñ koy def nañ koy def mu am sens. te amal amal local yi léegi jàpp nga ne amul sens bi ñu nekk nii war nañu gëstu fichier bi génne ci yëpp loo xam ne gàllankoor la. yoo xam ju mu jubanti ñu jubanti fichier bi yëpp a dox normalement ñu def élection yi voilà. d'accord mais opposition ak société civile ñoom euh, nee ñu lii aussi kenn warta fàtte mooy ne calendrier républicain bi dañu ko war a respecter maanaam amal élection yi ci date yi ñu ko jàpp. waaye loolu mooy lu tubaab di wax fétichisme mooy nga ñëkk ci benn affaire ni nam nii rek la nii rek la nii rek mais feebar bi rek moom feebar bi ñëw nii mbas bi ñëw nii moom rek. mënoon na tax ñu renvoyer élection yi moom rek mënoon na tax waaw donc il faut pas ñu nekk ni def ay fixation il faut mu am foo mu am foo mu am waaw su mënul am na nu ñuy def dañuy xaru bon je pense que na am temps bu mu arrêté am na d' accord ñu wax ci dialogue bi nga xam ni sax euh, daanaka ci waxtaan yooyu la ñu euh, mel ni ñu bëgg a génnee dàquma élection yi dialogue bi euh, bala ñu yegg si ci poñ yi ñu déggoowul lan ngay xaar ci ci pandaw li est ce que am nga ci yaakaar non man dama mës a d'accord pour nit ñi di discuter damay fàttali ne Sénégal euh, président Senghor moo newoon le Sénégal dëkku dialogue la donc je pense que war nañu mën a dialoguer à tout moment war na mën waxtaan parce que waxtaan mooy mooy tax réeroo du am bu réeroo amee rek c'est que waxtaanuñu alors donc war nañu waxtaan même lii bu passé war nañu trouver ay système yoo xam ne périodiquement dañuy waxtaan. maanaam nguur gi day woo opposition bi ñu discuter n'est-ce wala nguur gi bu buggee def dara mu woo opposition ne leen daal lii laa xalaata def lii laa fas yéene def loo leen ci xalaat ñoo ñu joxe seen xalaat ñu avancé man je pense que loolu la je pense que loolu la et puis euh, moo gën ku nekk di xoolee di di di di xoolee sa moroom catu bët di di ko di ko soupçonné ci ci ci lii wala ci lële je pense que dialogue bi loolu la war a loolu noonu la war a demee quoi noonu la war a tëddee. d'accord léegi li liñ fa waxtaan liñ fa waxtaanee man xaw ma ko ndax fekkewu ma mais je pense que euh, am na yu bari yu ñu avancé. Euh, yi nga xam ne déggoowuñ ci nag mooy nekk président nekk chef de parti ak itam statut ak euh, statut chef de l'opposition kan moo war a nekk njiital opposition bi ñaari ponk yooyu lan moo ci sa gis-gis. bon je pense que euh, débat bi nekk njiitu réew mi njiitu chef de nitu chef njiitu parti kooku débat bu yàgg la je pense qu'il est temps ñu vider ko et je pense nañu waxtaan rek ba ba ba ba jubóo euh, d'ailleurs euh, du rek chef du rek président je pense que même premier ministre warul nekk njiitu parti premier ministre mun na nekk njiitu parti mais premier ministre warul nekk njiitu parti donc yooyu yooyu dañ ko war a profiter dugalaale ko ci mu mu kii bon problème bi c'est que euh, man damay wax loo xam ne dama koy dëggal am na bi bi bi bi Macky Sall ci pouvoir bi en 2012 man déclaré woon naa que moom war na continuer nekk chef de parti lu tax ndax parti dafa dekkoon parti bu jeune mu ngi doon doon a commencer parce que rek il est chef d'état bu bàyyee parti bi kooku mun na indi yeneen gàllankoor mais je pense que mun nañu xalaat décider euh, bu fekkee Sénégal moo ko décider du ko décider pour tey waxuñu njiitu njiitu de warul nekk chef du parti ngeen bëgg a tey tey tey boo am kooku buñ koy décider dañ koy décider pour l' avenir comme toutes les lois dañ koy décider pour l' avenir pour bu beneenee chef de parti euh, njiitu de dootul nekk chef de parti mais premier ministre aussi ci man warul nekk chef de parti léegi nag pour yëfu euh, opposition bi statut opposition bi moom. Euh, constitution bi wax na ci man li ma gis ci statut opposition mooy opposition dañ ko war a wekk dañu war a xam ne ni ay sénégalais lañu ñoom itam duñu ay duñu ay chinois duñu ay japonais ay sénégalais lañu n'est-ce pas duñu ay ay ay ay samba boy ay kilifa lañu loolu mooy statut de dañ ko war a respecter léegi chef de l'opposition ci suma gis-gis amagul fii Sénégal tigi tigi parce que opposition bi ci boppam nanguwul ne am na chef waaw mais buñ ko waree tànn ci suma xalaat buñ ko buñ ko waree tànn dañu war a seet koo xam ne moo ëpp député assemblée nationale man je pense que tey tey tey chef de l'opposition fii Sénégal Ablaye Wade la na neex na xadi Ablaye Wade la. pourtant ñu bëri jàpp nañu ne ci euh, régime présidentiel la nekk kon Idrissa Seck mi jëloon deuxième moo war a doon chef de l' opposition. waaw yow yow yow su ma xalaat nga ma laaj man jox naa la ko léegi man lu ñu ñeneen ñi xalaat seen affaire la man su ma xalaat la joxe. ci sa xalaat daal Ablaye Wade mooy chef de l' opposition. bu fekkee ni ñu ni man ni ma ko xalaatee. Mhm. li fi tëddee tey nii moo ëpp assemblée moo député assemblée ci man PDS leaderu PDS mooy chef de l'opposition. d'accord kon da nga jàpp ne ci législative yi la ñu war sukkandiku pour tànn ko. tout à fait. chef bi alors ñu waxaat tuuti ci local yi est-ce que euh, seen parti mu ngi koy préparer ndax da ngeen a nar a ànd ak euh, majorité bi wala yéen a ngi xalaat dem ci yéen dong. fu mu nekk nii daal suñu xel a ngi ci de toute façon suñu xel a ngi ci pour le moment loolu laa la mën a wax. léegi bu ñu ci tolloo de ñëpp dañuy xam ban ban position dañuy jëm ne suñu xel nañu. Euh, d'accord ñu wax ci léegi mbirum euh, Lamine Diack euh, mi nga xam ni tëj nañu ko kon ñeenti ati kaso ñaari daf ko war a tëdd waaye fi mu ne loola dafa taxawan déggum ndax appel bi ñu def mais verdict bi France joxe ci moom ak doomam Massata naka nga ko gisee ñu tuddaat leen sax ci yeneen mbir yoo xam ni ba tey mbirum koppar la luubal ak lewal xaalis gu lewul. waaw man je trouve que c'est pas juste man euh, Lamine Diack suma xarit la suma mag la suma kilifa la donc euh, franchement li kat dal nii daf ma naxadi te Lamine Diack mag la am na am na juróom-ñeent juróom ñeent juróom ñetti fukki at ak lu ko paase mak la dégg nga alors te lu ñuy wax éminente personne du du du rek Lamine Diack c'est une éminente personnalité fii Sénégal dafa mel ni tey ñu demoon France ñuy wax Balladur Balladur est une éminente personnalité musul nekk président France mais nekk na nekk na assumé na rôle yu bare dégg nga Lamine Diack c'est une éminente personnalité fii senegal donc lu mel ni bu ko dalee à l'étranger ñun ñëpp la war a naxadi man naxadi na ma yàlla rek moom moo ma seede naqari dama wax naa ko seeti naa ko moom munuma ci lu ëpp loolu bu ma amoon alal danaa fay caution bi waaw mais aw aw ma alal donc munuma ko def. d' accord da nga gis ne état bu Sénégal ñu joxe caution de temps pour ñu mun ko ñu mun a teg tuuma ñu teg ci kawam. d' accord le début yaa ngi wax ne état bu Sénégal euh, daf ko seetaan waroon na euh, jug ci bi muy teel euh, fi mu ne tey yaakaar nga nii mën nañ ci dara. nekk nii xawma gisuma lan la état mën a def gisuma ko xanaa négocier ñu bàyyi ko mu ñibbi je je ne sais pas honnêtement c'est-à-dire que yu mel nii buy buy xew ci système u France ak système u Sénégal yu mel nii buy xew bu muy nekk parquet foofu la foofu la nit ñi war a taxaw parce que foofu mën nañ ko régler mais bu demee ba ci kanamu tribunal mais foofu mënatoo ci dara en tout cas liñ ci mën barewul je pense que euh, consul général bi nekk Paris ak ambassadeur bi je suis convaincu que lu nekk lu ñu mënoon a def def dañ ko mais xëy na yëf yi avancé ba pare donc mënuñ ci ñu dem tuuti ca Mali euh, foofu euh, mbir yi mi ngi avancé ndax euh, fal nañu président de transition civile ni ko CEDEAO bëggee woon est-ce que am nga yaakaar tey ci ëllëgu réew moomu mu am stabilité surtout di dal gi nga xam ni ñàkkoon na fa jamono yi ñu weesu ak wàllu avancement ci yeneen fànn yi. am naa ci yaakaar ndax li li xale yi def li colonel yi def mais looloo war. et je répète defuñu coup d'état dañu jël pouvoir bi mën nga jël pouvoir bi ci élection yu wër élection yu yu yu set élection yu yu yu sell nga jël pouvoir bi mën nga jël pouvoir bi ci élection aussi yu ñu luubal mën nga jël pouvoir bi ci révolte populaire mais mën nga jël pouvoir bi parce que da nga am doole damay rappeler que ci société humaine yi ki jëkk wax ne nii la nii la yëfi nii lañuy ñuy tëralee moo mooy koo xam ne moo ëppoon doole ci group bi loolu la commencé ensuite ñu décidé que loolu loi la et cetera bon donc militaires yi il faut pas ñu teg leen comme ay nit ñoo xam ne jànguñu ah yow mii di wax ak ban mii mais militaires yi ñooñu ñun gënuñu leen jàng ñoom buñ ñu gënul jàng ñun gënuñu leen jàng donc war nañu mun a diriger réew am na réew yu ñu diriger. li nga gis Ghana nekk tey mais liggéey jooy Jerry Robinson capitaine Jerry Robinson mu liggéey Ghana ba ne Ghana nekk lu mu mun a lu mu mun a demee boppam tey am na militaire yoo xam ne mais ñoo redressé seen réew mm-hmm. donc du ñu waruñu ne rek ay militaire lañu ay jànguñu wala lii wala la d'abord c'est pas vrai jàng nañu kon yaakaar nga ne militaire mënoon na nekk ci attitude du CEDEAO mm. mais kii ñi tànn nii nii nii ancien colonel major bi ñu tànn nii baa baa jaww boobule. Mhm. mais civil la nekk nekkatul militaire civil la. Mhm. kon nag bugguma dégg euh, yaakaaruma ne CEDEAO dana taxaw fële ne ah non dañ leen newoon civil civil civil du xeet. Mhm. civil du diine. d'accord. et je ne vois pas lan la civil yi mën a def mieux que militaire yi nécessairement. justement kon da nga jàpp ne militaire mënoon na nekk ci boppu transition bi. man de ci suma xalaat man bu ma leen doon xelal bu ñu ma jëloon comme conseil dama leen di ne bu leen ci bu leen ci wàcc des leen ci position bi ba ma xool gars yi lu ñuy def man CEDEAO dam koy yàgg bëgg man liggéeyal di liggéeyal naa CEDEAO mais honnêtement wax yooyu man xaw ma yan façon wax la. justement taxawaay bi CEDEAO am bëggoon ñu organiser euh, waxuma invasion mais en tout cas euh, action militaire contre ñu waa Mali mais loolu loolu heureusement. ku mel ni euh, président Macky génne na ci. Mm. parce que loolu buñ ko defoon loolu xaru. Mali du du ay dëkk yu ndaw yu ndaw yu ndaw yu nekk CEDEAO ah. mm. attention. d'accord léegi taxawaay bi CEDEAO am globalement ci crise malienne bi yow ban euh, jàngat nga ci def. est-ce que jàpp nga ne jël nañu en compte na nañu bëgg-bëggu waa Mali yi. man je pense que lu CEDEAO war di def. moo yenn situation yi buy commencer compliqué moom CEDEAO mu taxaw ci balaa yii di egg ñoom fan bi bi IBK di di di di di di ay troupam yi di jam nit ñi ci ci ci mbedd bi di tir de lacrymogène di tëjlu ay nit di brutaliser ay nit ñoom fan lañ nekkoon ci réew mais yéen ngi quand même xanaa ba yëfi toll fii ngeen ne boo ñuy jël pouvoir bi nañ fi génn comme bu fekkente ñoom du ñu ay malien ay malien lañu te militaires yi seetal bu baax en Afrique dëkkuñu ci caserne yi dañu dëkk ci cité yi ak nit ñi lu nit di vivre la ñuy même problème bi la ñuy am même difficulté yi la ñuy donc je pense que am na ñu sensibilité boo xam ne bi bu yëf yi demee ba compliqué ñu mun ñoom seen jël seen responsabilité. jërëjëf euh, Jean-Paul Diaz amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi fàttali ni yow yaay secrétaire général BCG bloc de centristes gaynde ñu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi dellu di leen nuyu di leen.